on a que ci wolof xamoon nañu équipe bu bëgg a football lañ que dañuy ñëw bi pour jéem a football kon aussi dañu waxoon ñu teel a pressé leen haut que bu ñu récupéré mbal yi haut on va tout de suite marqué marqué et c'est ce a def marqué 4 buts rapidement après malheureusement bii bi ñu jël mooy yàq tuuti fête bi mais voilà dugal nañ 5 buts comme sama numéro bi. kon xëy na siñ la woon dañuy remercier en tout cas yàlla bu baax di remercier staff bi di remercier waa joueurs yi ak euh, remplaçant yi yëpp parce que même remplaçant yi dugg tamit joxe nañ loole loolay wan ni groupe bu taxaw lañ groupe bu dëggu lañ te amoon na solo trop tey ñu renouer avec la victoire après la coupe du monde. sans sélection nga am maanaam téeméeri sélection ak équipe du Sénégal lan mooy sa secret ba ngay yàgg sélection nationale. comme ni mu ko amul secret di sant yàlla bu baax moom mu ñu may santé may ñu wér gu yaram bu ñu mën a di teew à chaque fois ci sélection bi surtout euh, di entraîner bu baax ci suñu ci suñu club ñu permettre ñuy dellu si à chaque fois équipe nationale en tout cas di sant yàlla bu baax di continuer di liggéey tant que yàlla mi ñuy may santé ak wér gu yaram nañ def li ci war pour euh, répondre présent à l'équipe nationale bi